wooteb sëñ bi mu ngi woo mbooleem ñi nga xam service yi nga xam ñoo ne ci région de Diourbel ak département Mbacké yëpp bis bi ko ci yàlla man loo nga ñëw ànd ak moom ñu dundal ko bu ko defee lañ fay jële ñu mën koo bokk ndax wax nañu kat si Abdou Khadir imam daana wax ne barabu sëñ Mbacké Bousso lu fa waaye ñaan te nanguwul jàppal ne ci yow la kon barabu ñaan la boo xam ne nii yaakaar nañu loolu lu fa waaye ñaan te mu ànd ak positif dinañ ko nangul kon sëñ bi laan di woo ci bis bi di leen séentu ñu ñëw bokk kon kàddu yi cant ak ngërëm la ci turu délégation bi nga xam ne nii moom la ñu àndal. ngay tënk daal ci jataay bi sëñ bi moo ñu fi yabaloon ci waajtaayu màggalu Guédé ñu teewal ko ci kanam gouverneur ak mboolem chef service yi nga xam ne ñoo ne ci région de ngir càkkuteef yi nga am nañ ko ngir bis bi mën a jag war a mel ni war a mel bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi maanaam dal fekk nañ fi itam ak jàpp jàppandal fekk nañ fi tam ak disponibilité boo xam ne gis nañ ko ci service yi nga xam ñoo fi nekk ak seen yéene ci taxaw ci bis bi ba mel ni mu war a ñëw nañ ci wàllum courant bi dégg na liñ ci wax ñoom it wax nañu daan ci taxaw bu soob yàlla lépp lu ñu war a def ba coupure courant du fi am ci jamono màggal gi waaye itam làmp yi nga xamoon nañu ko soppi ànd commune Touba wax nañu daan ci taxaw nañu ci war a taxaw bu ñëwee ci wàllum wér-gi-yaram itam ñu yore wàll wér-gi-yaram wax nañu daañu indi benn poste avancé incha allah ànd ak ambulance ak équipe médicale bi mu war a àndal ak eh, médicaments yi xam ne ni moom la ñuy soxla moom jël nañ ci engagement bi ñu ñëwee ci wàllum yoon itam ba tey ñoom itam jël nañ ci engagement waa Ageroute xëy na gouverneur dana jël engagement ci lañ fa war a jubbantiwaat ci yoon yi ñu jubbanti ko moom itam ñëw nañ ci. bu ñëwee ci wàllum service d'hygiène tam ñoom tam jël nañu engagement ci ne lépp luy wàllum pompe danañ ko fa taxawe commune Touba tam jël na engagement ne lépp luy wàllu carburant dañ war ko cee def dañ leen ko jox ba mat sëkk ngir ñu mën a taxawe loolu bu ñëwee ci wàllum assainissement bi tam vidange fosse septique yi nga xam ne ni moo am ci dëkk ba ñu ne ñoom it commune bi jël na engagement ne dana ci joxe juróom benn fukki kër xëy na ñun ñaar téeméeri rotation la ñu doon demandé ñu ne dañ jox juróom benn fukki kër xëy na tur yi rek mooy wuute waaye bu ñëwee daañu xam ne ñu koy organisé ba nga xam ne nii dana mën a sotti incha allah bu ko defee ci wàllum euh, tonni mbalit mi tam euh, ñoom it waa SONAGED jël nañu engagement ci ne danañ indi camion yu ma yoo xam ne ni lépp lu fay man mën ko ramasser del bu ko ci dépôt yi incha allah loolu tam jëlee nañ ko fi bu ñëwee ci wàllu ndox mi tam OFOR ak Sen'Eau ñoom tam jël nañ engagement ci ne camion seetaan incha allah lu mat juróomi dana mën a jàppandi yeneen taxawaay ci am itam bu soobee yàlla mu jokk ak ñoom danañ ko matal. bi ñu ñëwee ci wàllum service élevage tam ñoom it jël nañ engagement ci ne lépp luy wàllu euh, maanaam xéewal goo xam dañ ko fa jëfandikoo mu jëm ci wàllu lu ñuy lewetal danañ ko saytu ba lañ fay lewatal dana jaar yoon bu noppee mu gis na ko mën a jëfandikoo te benn eh, jàngoro bu ca toog waa ooy fa itam ci wàllum matt mi déglu nañu ñoom tam wax nañu jekk nañ ngir jàpp lañ ci lépp lu ñuy soxla ci matt ñu mën ñu koo jàppante bañ ko am ci charte ñu def demande def ko demande collectif boo xam ne nii dañ leen koy jébbal ci waxtu bi ñu ko war a jébbale service commerce itam jël nañu engagement ci prix yi ni ko santaane te ñu war koo jaaree noonu wax nañu taxawaay bi ñu ci fas taxaw ak produit yi nga xam ne itam day day jaa day yàq ba noppi ñu bëgg koo préféré du ko jaay ci bis yi mel noonu ñoom it wax nañ daan ci taxaw ba loolu lépp ñu matale ko wàllum sécurité itam ñëw nañ ci gendarmerie police ak sapeur pompier wax nañu taxawaay bi leen ci am bi leen ci war ñëpp incha allah daañu ko ci taxaw ba benn jafe-jafe du ci am xëy na nag ñu war caa jàpp jàppalanteeg ñoom ci def communication ci wax ak nit ñi ña fay ñëw tey jege feneen di ñëw ak ñeneen ci biir dëkk ba tam ñu wax ak ñoom ci waa ku nekk mën a sàmm sa kaaraange bopp bu ko defee ñoom ñu mën leen a jàppale loolu daal mooy defe naa ne tënku jataay bi ci teewaay gouverneur ak teewaay délégation bi nga xam ne nii moom la suñu yebal te suñu Abdourahmane ñu ngi jiite ko kon daal ñoo ngi sant di ko. seen service yi engagé woon ci gunge leen ci secteur bi mën a doon. jàpp leen rek lépp luy taxawaay ci bés boobu incha allah waaye di rafetlu tamit taxawaayu commune bu Touba bu mosquée bi nga xam ne engagé wu na parce que ci wàllu organisation bi am na ci pàcc bu rëy boo xam ne dina ci def muy ci wàllu cadre de vie muy nettoiement muy ci wàllu hygiène également ak ci wàllu assainissement ak lépp loo xam ne ci énergie war na ci am compétence yaakaar naa engagé wu na pour su ko defee boole. ñu boole ñaari doole yépp muy doole état central ak état démocratique